yéen ñii diñu seetaan jaaree ko ci YouTube su jot suñu publication ngeen abonné Al te bu leen fàtte laal cloche bi si nga xam ne defoon na ko ci Serigne Touba ci kanamu administration coloniale bi Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf dajale woon nag ay ñooñam ñëwoon ci daarul marnaan ngir nag aar résidence su Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul at bu jot nag xalaat boobu dañu koy màggal fii ci daaru marnaan muy jamono yi nga xam ne nag daanu ci fàttaleku taxawaay bi nga xam ne Buur Siin amaloon na ko ci fanweer ak ñaareeli édition bi ab organisation bu mucc ayib jëmmal nañu ko bu nu sukkandekoo ci ñi ko doon taxawu le 13 juin dafa am solo ndax gannaaw ba Serigne Touba seede le 7 juin euh, à Saint-Louis dafa jiitu si tubaab yi fii bi ñuy laate ñëw mu ñaan Serigne Touba ne ko dama la seedeel Saint-Louis gage suma mantu gage suma famille gage mon royaume du Sine mu ñaan Serigne Touba ne ko ma buggoon na nga may ma man ak sumay gawar ñu wër kër gi ma jàkkaar lool pour kenn du fi mun a dugg suul fi ay gànnaay taxawaay bi nga xam ne Buur siin Coumba Ndoffène Diouf amaloon na ko ci kanamu nasaraan si doon loo xam ne lu ndaw ñi war a mën a jàngee la ci jamono ji ñu toll bu nu sukkandikoo ci ki fi woon jëwrin di Arouna Coumba Ndoffène Diouf bokk it ci njaboot gi. waaw wàllu organisation yi ni ko defee woon daaw lañ ko defee ren. daayira bu nekk ñëw nga am na ñoo xam ne depuis deux jours ñu ngi fi fii lañu fanaan di ci sant yàlla nag ndax ni nga xam ne noonu lañ ko séntu woon ci organisation avec aussi l' assistance de l' administration euh, teewe nañu encadré nañu aussi en termes de sécurité jox nañu courant jox nañu lépp donc loolu ñu ngi sant le gouvernement aussi ci taxawaay boobu ñu taxaw. at bu jot lu ëpp juróom-ñaar fukk ci ay daayra dina ñëw nag fekkee si bés bi ànd kook yi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci daarul marnaan xam nga Buur Sine tey jii li mu seede ba tey jii ñu koy màggal màggal bi dafa symbolique en terme de référence c'est-à-dire xale yi war nañu jël référentiel ci ci maam yi et du Buur rek gis nañu suñu suñu kilifa diine yi mel ni Serigne Touba Serigne Touba biñ ko tuumaaleel exile nañ ko il a fait une une euh, comment dirais-je euh, il n'a pas fait de guerre sainte li ko doon wax jihad lañ ko doon wax ne moom lay def il n'a pas fait dem pacifiquement ñëw yàlla jox ko ndam bi. kilifa diine yu bari it nemmeeku nañu ne ñëw nañu ci célébration bi nu mel. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.